daal leen jàmm mbokk yi juróom-ñaari waxtu moo jot fii si suñu ay makkaan mu yoxtu jukki leen xibaar yi ay ca ñu dem ci li ci gën a fës bokk na ci ca Kaolack euh, ni ki euh, big euh, ab boutique multiservice moom la ay Samba Boy daal di songo ca noonu nag kenn ci yooyu li Samba Boy ñu daal di ko dóor ba mu ñàkk bakkanam am na itam ab policier boo xam ne moom it jëlee na gaañu gaañu ci boobu lépp songonte mu ngi amee nag ca Medina. bàyyi euh, ni ki euh, démb ay quatorze ay quatre heures euh, du matin ñoom nag dañu ñëwoon doon sàcc ci boobu lépp boutique waa koñ bi nag génn fas yéene jàmmarloo ak ñoom ca Thiès kaay rawatina quartier bi ñu duppee euh, Kër Salimata euh, foofee nag euh, askan wa fa yeewoo te loru ci li nga xam ne moom mooy industrie chimique bu Sénégal ñoom nag tiis ak naqar moom la ñu nekkee ndax nag ni nañu installation usines yooyu nga xam ne def nañ ko ci seeni gox mu ngiy ëlëm seeni dund loolee waral nag ñu daal di yëkkati ay kaddu fësal seen naqar daañu leen dégtal. seen i kàddu ci bile jotaay xibaar. bokk na itam ci lanuy waxtaan waxtaanee mooy wàllu euh, biti réew fële ca Niger euh, foofe nag ab euh, groupe politico militaire moom moo daal di daanaka teg loxo benn préfet bu Bilma muy gox ba nekk foofe la teg ko loxo ba noppi nag daal di sàkku ngir ñu bàyyi ki nga xam ne moo fa nekkoon njiitu réew di Mohamed Bazoum laata ñoom it ñuy bàyyi préfet bi nga xam ne teg nañ ko loxo euh, kuréel gi duppe boppam Front Patriotique pour la Justice euh, te euh, kii di Mahmat Tori jiite ko ñoom ñoo def jëf juni mel la bëgg nag nee nañu mooy lii di démocratie delluwaat ci réewum Niger lii moom mooy ponk yi nar a gën a fës mbokk yi yaatal gi léegi léegi lay doon su bàkk bi jibee ba jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi dal leen ak jàmm ca Kaolack ndangaan foofee la ñu koy uh, tàmbalee nañu leen ko doon junjee ca boppu xibaar yi ab boutique boo xam ne ci wàllu uh, njaayum um, ay service lay yëngu moom la ay sambaboy doon uh, bëgg daaj ji mu xewee nag démb ci guddi samedi jàpp dimanche bu 4 heures du matin boobu 4 heures du matin ca quartier Médina Baye Euh, li nga xam ne nag ñoom ñooy euh, euh, sambabo yooyee kenn ci ñoom dañ ko daal di faat ginnaaw ba ko waa koñ ba songee ñoom nag dañoo ñëwoon doon sàcc boobu lépp bërëb waa koñ bi taxaw ne du ci daal ci jamono jooje itam police mu ngi doon def li nga xam ne moom mooy ay rondam mu yem ci ñoom ñëpp ñu daal di bokk ci mbir yi am na nag policier boo xam ne ci boobu lépp xeex daal dina fay ci euh, euh, jëlee gaañu gaañu ñoom laata ñuy bëgg cambrioler sax boutique boobu dañoo njëkk sàcc oto boo xam ne antenne Sénélec ngaan Sayer moom moo ko moom laata ñuy dem ca dina bàyyi ngir daal di fay jéem a amal li nga xam ne moom mooy cambriolage bi ñu di ñu wax ne nag euh, jeune ndaw yi génn jàmmarloog ñoom policier bi nga xam ne nag moom moo fa jëlee gaañu gaañu ne nañu yóbbu nañ ko ca hôpital régional bu El Hadj Ibrahima Niass ba nekk ca euh, Kaolack ñi nekkoon nag ci groupe Samba Boy yooyee da jot nañu rëcc jamono ji ñu ngi leen di euh, wër bu baax a baax information bi nag Seneweb moom moo ko daal di fësal. ñu dellu siwaat nag ci génn àddina ki di euh, Mademba Sock di euh, syndicaliste kuréel goo xam ne nag moom mooy dajale euh, jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi di SAES dal di bind ab bataaxal ngir daal di koy sargal fësal nag jéego yi nga xam ne indi na ko ci wàllu syndicalisme tey ji lañu ko dal di fësal professeur David Célestin fay ak i naataangoom nag ne dinañ def seen kéemtalaay kattan ba li nga xam ne moom la fi ma Mademba Sock euh, bàyyi dañu fexe rek ba euh, génération yi di ñëw ñu fas yéene ci euh, tënku jëm mbay moo ñu faram fàcceel boobu lépp communiqué. syndicat autonome de l'enseignement supérieur di SAES e si bile bataaxal ñu bind siwal ko ñoo ngi rek delloo njukkal ndem si yàlla Mademba Sock mi génn àdduna am na léegi ñaari ay bés ñu koy sargal si liggéey bu am solo bi nga xam ne ni def na ko si réewu Sénégal xeexam yépp nga xam ne lam sa jublu du lenn lu dul fexe rek ba jëmale kanam nekkinu liggéeykat yi gaynde gi ñàkk na xeex bi ko lëkkale woon ak tawat bi ko mujjee yóbbu dafa mel ni monument buy daanu ndax taxawaay bi nga xam ne amoon na ko si wàllu syndicalisme moo xàllal yoon sañu syndicat ànd it dal ak jàmm ci sañu keppaar lii di seede waa SAES e si ma dem Mademba Sock professeur David Célestin Faye ak i naataangoom di tagg ma dem ba Sock di tudd am fitam tabeem ngëm-ngëmam si seen i kàddu lu ni mel bokk na si qualité yi nga xam ne moo tax tey ji ba Sock bokk si ñi yóbbu syndicalisme fi si réewu senegal fi mu tollu tembe SAES e di dikkaat si jaar jaaru ndem si yàlla ji ndax ñoo ngi xamle ni si fanweeri at yi ñu weesu nekkoon na fi si bopp SUTELEC nekkoon na it secrétaire général bu UNSAS jiite woon na it organisation des travailleurs de l' de l'Ouest di Ottawa yokk si di xam ne ni kër gu mu jaar def na fa liggéey bu mucc ayib jàngalekat yi nekk si daara yu kawe yi di fàttali si seen communiqué bile jàmm ak déggoo gi nga xam ne dox na si seen diggante ak Sutelec di kuréel gi lëkkale ñu di liggéey si wàllum courant Mademba Sock jiite woon ñoo ngi sax fàttaliku jàppale gi ng xam ne Sutelec jàppale na leen ko si seen grève bi ñu doon amal si atum 1989 waa SAES e ñoo ngi giñ musa mus a fàtte Mademba Sock fas nañoo yéene sàmm ndonoom ba mu nekk rek njàngat ak tegtal ci liggéeykat yi nga xam ne moom la réewu Sénégal war a am ëllëg Jëmm mbay bokk na ci liggéeykat yooyee Sénégal war a am ëllëg ndaw yi tey ñu nekk di euh, jàng toll ci euh, daara yu ndaw yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu kaw yi ñoom nag la kuréel compagnie gi di euh, Delta Airlines daal di dajale ngir daal leen a tàggat ci wàllu entrepreneuriat la ñu bëgg nag ci boobu lépp ndaje mooy fexe rek ba bis bu ñu leen dénkee liggéey ñu mën a xam ban taxawaay moom lañ ci am ànd ceeg Moussa Mané ndaje lañ daal di amal ngir rek xool ana naka lañuy def ngir mën a gunge xale yi ci lépp lu jëm ci mbirum entrepreneuriat ak ni ñuy doxalee lépp luy jëm ci wàllum entreprise loole nag ñu amaloon ko étudiants yi ndaxte jàpp nañ ni dina bokk ci luy mën a tax ñu xool ana naka la ñuy def ngir rek ñu mën a gën a jëmal seen compétence ci wàllum communication. bés bi tey lu ko waral mooy dañuy def Delta Innovation Camp pour tey suñu ndaw yi ñu mun leen ñaax si ëllëgee nan la jëlee seen. Euh, seen vie en main parce que tey kenn xaaratul kenn euh, tey euh, dañ leen jox tey ci bës bii nii tey ci benn journée bi ñu passé ak ñoom dañ leen xaw a jox ay outils yi nga xam ne bu ëllëgee ñoom dinañ ko mun a utiliser ci seen jàng dinañ ko mun utiliser ci seen avenir. ci jamono ji nga xamante ni nii ñu ngi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum réchauffement climatique Delta Airlines moom di xamle ni waajal nañ loolee bu baax a baax. ku ne transport aérien ne euh, pollution waaye tamit transport aérien rawatina Delta Airlines ñu ngi ciy dugal suñu loxo commencé di ci taataan di wàññi plastique bi ñuy utiliser di utiliser ay euh, matériel recyclé suñu biir avion yi. yile activité nag ñu àndi seeg ONG Junior Achievement ay at a ngi nii muy yëngu si lépp luy jàppale xale yi ci wàllum entrepreneuriat. dañuy former xale yi ci lépp lu jëm ci entrepreneuriat euh, woon leen. naka lañ mën a liggéeyee ñoom ci ay projet yoo xamante ne nii dina leen permettre ñu mën a am impact bi ñu soxla. dinañ amal njëriñ bu baax parce que dans dans tous les domaines comme finance dans le domaine aviation dans tous les domaines daal parce que tey taxawaayu tey bi yamul woon kese si ci aviation mais ça parlait de tout quoi. bile activité doon lu ama am solo suñu sukkandikoo ci organisateurs yi lee jàpp nañ ne li ni mel lañ ko war a gën a mën a wëyal ngir ndaw ñi mën see mën a jëriñoo ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Moussa Amane bésub tey bi nag yem ak ñaar fukki fan ak euh, ñett ci weeru euh, juin moom la àddina wërgal képp jagleel nag képp kuy liggéey ci wàllu fonction publique Sénégal fii nag ñoom ñu daal di ci porox ndoll ngir fësal jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu am ci wàllu liggéey wi bokk na ci nag ñu ngi ko tënk bokk si ñeenti euh, ponk muy fexe rek ba lii di seeni i ndàmpaay ñeel seen i dëkkuwaay ñu fexe ba ñëpp mën see jot ñu daal di euh, ubbi yeneen i corps de métier si euh, boobu lépp euh, ci fonction publique retraite bi nga xam ne bëgg nañu suñu ci dem fekk ñu toll ci 65 ans ñu fexe ba ñëpp daal di ci jot waaye itam Euh, li nga xam ne euh, moom mooy euh, collectif interministériel agent administration yi ñoom it dañuy profité daal di sargal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykatu administration yi daal di signé nag communiqué boo xam ne moom mooy tax ñu fàttaliku bis bi nga xam ne tey ji ñoom lañu ko jagleel 23 juin 2011 tey ñu nekk ci 23 juin 2024 mu nekk euh, fukk ak euh, ñetti at. yoo xam ne euh, ginnaaw ñu ngi doon amal ab manifester askanu Sénégal génnoon euh, taxaw ci buntu assemblée nationale ngir rek li nga xam ne moom mooy projet de loi bi ñeel ticket euh, présidentiel bi nga xam ne ki fi nekkoon ji réew di Abdoulaye Wade moom moo ko bëggoon daal di jàllale ci assemblée nationale mu nekkoon ab manifestation boo xam ne dañu ko autorisé woon mu lu bëri nag génnoon ci ay askan euh, ba euh, mu amoon nag euh, jàmmarloo bu tar bu doxoon ci diggante askanu Sénégal ak way tàkk der yi ngir ñu jëlee fi loi boobee nga xam ne dafay may rek lu toll ci vingt cinq cent ci suffrage ku ko am rek mu daal di jël raw gàddu gi tey ji nag mm, askan wi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk di dund jamono ji fii ci Sénégal lañu gëm mooy lawoon dafa won ni ndax ci diggante ba Sénégal daldi nay màgg bu baax a baax ci wàllu démocratie seeni kaddu Awa Diallo moo ñu ko taataanal. en plein dans le combat. donc nag mu nekkoon benn ticket boo xamante ne Abdoulaye Wade moo ko bëggoon jàllale sénégalais yi bañ donc ñëpp Sénégal lañ doon lañ doon gis on était toujours sur le terrain ba pare xam risques yi nag comme xam conséquences yi xamoon lépp on était conscient des fois nit ñi dañu doon jàppee dof je pense que combat boobu noonu moom moo continuer bii mais différence combat bële ak bii bii benn nit ko porté bii di benn doomu Sénégal dafa jug taxaw porte combat bi ak li ko ci li ko ci ci fekk yëpp moo tax ñu mën a jàpp ne xëy na tamit li amoon 23 juin ñu ko doon gis ci ci ci ci régime parce que régime Macky Sall li fa am ay 23 juin la du benn 23 Abdoulaye Wade benn 23 juin la mais régime mu Macky Sall ay 23 juin yu bari ñoo ñoo ñoo tegloo je pense que nag processus boobu noonu Sénégal fu mu toll nii man gëw ma ne dundaat beneen beneen juin gëw ah, si Macky Sall mais jeexalu ko fa mais bii nag yaakaar naa ne fa lay jeexee. daal màgg nañ si wàll démocratie parce que boo seetloo tout le temps dañuy naan du ñu yegg élection élection dina am wala élection du am xam nga dañuy xeex na am coup d'état wala affaire jàppal ba mais au final xam nga nit ñi dañuy dem voter si jàmm. xam nga ñu wax résultat yi si jàmm ku nekk nekk ci li nga nekk quoi. ñii nag jóg pour defar Sénégal ay gone yu ndaw lañu ay xale yu ndaw Basirou Diakhar Diomaye Faye jub jubal jubanti. boo leen xoolee seen Ousmane sonk bi nga xamante ni moom moom fa joxoñ si boppam boo xoolee li mu incarné jeune sénégalais yi mooy ñëw liggéey jàmm gëm sa réew comme comme affaire 23 juin yooyu kooku mënatuma ko xalaat mu mën a am si résime bi ndax régime bi boo xoolee nun commencé doxal nga xamante ne ñii bëgg noonu Sénégal te lépp lu ñuy teg da nga koy teg si démocratie. mënuñu jug rek yegg dix il faut ñu jugee un deux trois processus boobu il faut ñu respecté ko léegi Sénégal nag foofu la tolloon dañu doon xeex di xeex démocratie bi di xeex parce que démocratie bi c'était entre guillemets ah ñu koy xeex di ko xeex ba tey fii ñu toll nii tey ñu am benn yaakaar boo xamante ne bii am na benn conscience boo xamante ne dafa si jeunesse benn benn benn dëkk jaar ñaari gaar foofee la ñuy euh, wutali ndax askan euh, way yeewoo ca kër euh, Salémata ñoom ñi nga xam ne nag wàllu industrie chimique du Sénégal dafa laal daf leen laal bu baax a baax ba nag daal di jafeel seen ab dund ñoom ñooy xëy nag di fësal seen naqar ndax usines yi ñu fa installé jamono ji taraloo na lool seeni dëkkuwaay yi kii di Vieux Diop moom moo yor euh, seen kaddu ay ay kaddoom nag euh, suñu ndaw la ñu fa teewal moo ñu ko tatanal di Binta Traoré. nu am lu nu naqari lool lool lool yàgg lool ci ñun ci wàllu kër Saala Mbata parce que ñun kër Saala lañ dëkk yaakaarul lu lul kër Saala Mbata bi nu juddoog léegi demunu fenn ful kër Saala sunu maam yi nu fi bàyyi sunu bàyyi yaakaaru nu lenn lu kër Saala kër Saala nu xam fi lañ juddoo fi lañ yaroo te bi nu juddoog léegi ci mbay rek lañ nekk xamuñu lu lul mbay nu xëy xëy xëy. amatul benn benn espace boo xam ni mën nañ koo am fii pour bay ginnaaw yàlla li ñu ko yóbbee ICS gis ngeen ko nii àll bi ni mu mel fii ma taxaw sama alal la sama tool la yaakaar naa li fi nekkoon ci garab ku fëggoon mag ñi ñu bari li fi nekkoon ci mata ëpp na junni garab si ay mango ci ay darkase ñu si jëfandiku ak ñambi ak gerte fii ma taxaw gerte la nekkoon ren ren jii la gerte lañ ko bayoon bi ñu usine bi engagé bi ñu koy déqi booba gerte gi ñorul nu xëy xëy dal suñu kaw ni dañ koy jël bi nu ko jëlee benn tool bii nga xam ne fi la gerte gi ne kon moom na natt fii ma taxaw di ñaambi ji ak fii ma taxaw kenn nattu ko mais xool leen kàmb gi fi mu ne ak fii ma taxaw tey te yaakaaru yaakaaruma lul moom laa war a bay ndax tey am na sécurité pour ma taxaw fii ak samay waa kër ak samay faj di bay tan ni bayi leen te lu lul mbay kon ñun bu ñuy bay lan la ñuy bay loolu métti nu torop trop trop trop ñu jooytu ko guddi jooytu ko bëccëg ay atay ni nuy wax gisuñu kenn kun ci wàllu gisuñu kenn ku ñu dimbali ginnaaw Ceeskaay dañuy euh, wutali fi nga xam ne euh, moom mooy euh, njàmbu ca gox bi ñu duppee Bandeñ foofee nag askan woo fay yeewoo nag ñàkkum mbedd yu baax moom moo leen ni sonal ndax nag dafay tax ba bépp yëngu boo xam ne dañu koy fay amal moo xam ci wàllu koom-koom wala ci seen wàllu liggéey dafay jafe lool ngir ñu amal ko ndax ay mbedd yu bon su ko defee nag meeru gox ba di Assane Seck moom moo daal di yëkkati kàddu sàkku ci autorité yi ngir ñu ñëw wàllu si yoonu bandeñ bii mhm. jóge ngumba jaag bandeñ ba ba jaagu faal jaagi daagu faal ba cepp ci dëkk yi ma mën a lim loolu képp dong mooy soxla bi nga xam ne bu ko askanu mbawoor buñ ko fajalee askanu mbawoor mel na ne fajal nañu askanu mbawoor jàngooro yëpp buñ doon seet ñi fi am xëy li ci ëpp yoon weeloo ko yoon woo leen ko jox mhm. kenn fanaanatul ngumba ndax ñàkk lu la yóbbu mhm. waaye yoon wi bu taxawoon li fi nekk ci ci mbaar ëpp na ñaar fukk presque ëpp na fanweer xaw ma nu mu toll waaye ñoom ñëpp bu boobaa di mën a dem di ñëw oto yi gën a yàgg ah, dégg nga ñu ne fii ci ñaay bi nga xam ne ñu fa sunu diggante ak ñaay bi matul ñaar fukki kilomètre ñu ne loo jëlee ci mbayum sobleeg pombiteer ak lu ci ñu ko jublu téeméer bu nekk juróom benn fukk ya ba juróom ñaari fukk foofu lañ ko jëlee waaye buñ ko jëlee dañuy obligé war a jaar moom Louga wala war a moom Lompul loolu nag bu amoon fii la ñuy jaar ci yoon wi fu ñu bëgg a dem ñu dem fa. aw autorité yees bi. lu njëkk li leen di gën a xaar mooy ñu godrone piste bi ñu xam ne ñu ngi koy leen de Géoul à Saare Daaw biir 73 14 villages bu yeboo maa ne la 23 villages la ñu des ya nga xam ne ak plus ay amoo xam nga ñaar fukki dëkk ak ñett la ñu des ñu amagul courant. dañuy dellusiwaat fii ci ndagaaru wutali fële xam ni mooy bopp askan wa fa yeewoo nag ba léegi ñu ngi yuuxu di fësal seeni naqar ci dog-dog gi nga xam ne euh, dogatewaat nañ ko lii nga xam ne mooy gox goxaat yi ba mu jurul leen musiba ne nañu ci wàllu euh, jumtukaay ñeel euh, bërëbu jàngkaay bu ci mel ni école imam Abdou Ndiaye nga xam ne bokkatul ci seen népp gox naka noonu centre bopp bi nga xam ne itam booleetuñ ko ci seeni gox te ñu moomoon ko loolee nag métti leen bu baax ñu. doon woote nag uh, way taskatu xibaar yi ngir daal di sekk ak ñoom waxtaan daal di fësal seen naxaar ci teewaayu Jibril Diallo. coow li li ko waral découpage administratif la boo xam ne. mu ngi xewoon ci régime socialiste atum 1996 acte 2 de la décentralisation jël centre bi ak école élémentaire imam Abdou Ndiaye yóbbu ko ci commune grande Dakar jël li ci des quartier ba yóbbu ko ci commune Biscuiterie ñaari fukki at ak juróom-ñett gannaaw loolu nag askan wa fay yeewoo ñu nga woy di xeex ngir ñu delloo leen seen établissement yi lee. repéru waa bopp moom leen jël yóbbu leen Grand Dakar ñun quartier bi ñu yóbbu ñu Biscuiterie suñu dernier espoir bi ñu am ñoo ngi am si président Diomaye Faye moom moom moom la am espoir xam ne injustice bi dina ko réparer. tali secondaire bi moo nekk voie communal mi nga xam ne moom moo séparé commune bu Biscuiterie yi ak commune bu Grand Dakar. bu ñu sukkandikoo nag ci kii jiite kuréel bi di collectif Bopp bu bi ñuy def découpage bi jëluñu en compte intérêt ba. là où je vous parle je suis dans la commune de Biscuiterie. fii may waxee ak nii maa ngi ci biir commune bu Biscuiterie centre bu bopp mu ngi bokk ci commune bu Grand Dakar. looloo tax may sàkku ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ngir mu saafara jafe-jafe bu ni mel. injustice qui dure depuis 1996 soit réparée. ñu tabax ko ci atub 1955 centre bopp li ko taxoon jóg mu di tàggat ndaw ñi ci wàllum tàggat yaram waaye itam ci wàllub aada tàggat leen itam ci wàllum koom tey nekk askan ya fay yeewoo di jàpp ne rek centre bile seen héritage culturel la. centre de bopp histoire la ci bopp kilifa yu bëri yoo xam ne bopp la ñu dëkkoon jaar nañ fii centre de bopp daf fi pétanque daf fi nu mu tudd encore daf fi daf fi tennis de table basket fi lii ma téye ni tey. mooy première coupe d' Afrique des clubs champions yoo xam ne jigéen ñi ñoo ko remporté en ngir ñu delloo leen centre bopp ak école imaam Abdou Ndiaye askan bi nee na daal duñu tàyyi ñoom sax dañoo improviser ab doxuk ñaxtu ngir ñaax kilifa yi ñu delloo leen seen établissement yi lii xibaar la ci tënk ñeel wàllu tàggat yaram Amara Traoré mi nga xam ne ba léegi nii moo jiite woon Linguère bu Ndar euh, moom nag daanay euh, tekki euh, ndombal tànkam mu ngi ko mu ngi ko xamle ci xarale yu yees ya muy jëfandikoo ngir àddoog ay askanam moom Amara Traoré nag mu ngay gërëm bu baax a baax ñu mu doon àndal juróom benn at ba léegi ba mu nekkee ci boppu club Saint-Louisien boobule. nee na nag jéem na def kéemtalaay kattanam ba lépp loo xam ne ay défi mu fexe na mu ko relever bokk itam ci wàllu tàggat ndawu euh, ville ba loole yëpp nee na jot na nag tey jii mu daal di leen gërëm waaye itam daal di tàggatoo delloo leen li nga xam ne moom la ñu ko euh, dénkoon la ñeel nag nan la ñuy def ba wéyal lañu tàmbali woon nee na am na doomu ndar boo xam ne euh, daanaka am na pas-pas bi am na xam-xam bi waaye itam bëgg na euh, li ñuy def xam na bu baax fan lay teg tànkam moom la ñu fas yéene rek daal di woo ngir mu daal di wéyal liggéey bi te moom it taxaw na temm ngir mën ko def na mu a waree Amara Traoré nag jàppale ne moom moo gagné édition bu njëkk bu championnat professionnel bi loolu mi ngi amee woon ca atum 2009 euh, mu nekk itam euh, di remercier bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon euh, jàppale ci liggéey bi boobu ba léegi mu mel ni rek génn gi mu génn ci boppu club bi dafay tijji dafay tëj ab page waaye tijji ab baneen xët bu yees boo xam ne dafay ñeel club bi leadership boo xam ne ne ki ko fa wutu moom la nar am moom la ñëpp di xaar jamono ji xool na lay def rek ba li nga xam ne jot nañ ko liggéey ca Linguère bu Saint-Louis ñu fexe rek nunu ko euh, dal di euh, téye fii ci Ndakaaru coordination sénégalaise pour la cause palestinienne bi nga xam ne ab kuréel la buy euh, jàppale réewum Palestine ni ki tey ji dañu xëy amal ab randonnée euh, pédestre euh, ngir soutenir rek réewum Palestine ndaje ma nag dajale woon ay sénégalais yu bëri yoo xam ne situation ba nekk ca Palestine soxal na leen bu baax a baax ci teewaayu Matar Bari la woon bokk na ci manifestation yu bëri yi nga xam ne coordination sénégalaise pour la cause palestinienne amal na ko ñu def ko nekk ab randonnée pédestre boo xam ni sénégalais yu bëri teewe nañ ko rawatina ay acteurs yu bokk ci société civile li ko sabab nag moo dañoo bëgg ñu dakkal massacre yi nga xam ne ñu ngi koy def ca Palestine. jàgg nañu jóg tey dañu gën a jóg encore une fois parce que gis nañ ne boobu ba léegi ñu ngi bàyyi Israël muy def lu ko neex ci Palestine donc loolu il faut que àdduna bi yëpp jóg ci taxaw si. waaye ñaxtu yi nag li ñuy laaj moo ñu dakkal rey yi nga xam ne ñoo ngi koy def sa Gaza te ñu jàppee ko crime contre l'humanité yi. guerre dafa am ay doo nekk ci guerre rek di rajax ay hôpital di yàq ay ay lekkool di rey ay xale rey ay jigéen yoo xam ne n'est-ce pas fetal xeexuñu loolu c'est des crimes de guerre te dafa nekk ci mandat wu cour pénale internationale kon ñu ngi aar procureur bi très rapidement ñu jox ko ndigal pour que mu lancer aujourd'hui des poursuites contre Netanyahou et ce ministre de la défense. ñu ngi woo itam réew yu mel ni Sénégal ñu dakkal bépp relation ak Israël. même ñoo xam ne duñu sax ay jullit ñu ngi jóg. di wax si affaire Palestine boo demee États-Unis ay université yu bëri ñu ngi def même chose nañ teg acte fort acte fort mu ngi commencé ci daal di dakkal bépp relation diplomatique ak doom doomi Palestine yi nga xam ne ñoo ngi yewoo Sénégal ñu ngi rafetlu bu baax bile mobilisation te di am yaakaar ni dina gën a dooleel sensibilisation bi. cette euh, conscience mondiale qui s'éveille. lu àdduna bi yëpp jug di fësal seen jàppandal askanu Palestine dina am njeexital te dina tax guerre bi jeex. tout d'abord à approche. que dama am mbégte ndax gis naa ni askan wi ñu ngi gën di yeewu ci mbir mi li ñu war a amal rek mooy yokk dox ñaxtu yi ngir ñu gën leen mën a sensibiliser. bi mu tàmbali ak léegi rek guerre bi ci diggante Palestine ak Israël am na 261 jours bilan bi toll ci 7500 doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan am ci 86000 yoo xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu. s'en faites pas parce que nous serons là pour vous aider, pour vous tendre la main. ginnaaw Palestine ñu àddu ci réewum France foofee nag ñoom fal euh, ña leen di teewal ci seen euh, euh, parce que te fay ñay teewal askan wi seen pencu ndaw réew ca la ñu dëgmal ñu fa yéene ko amal fanweeri fan ci weeru juin bi ñu ne fii ci Sénégal nag kenn ci ñi samp seen dënd bokk ci majorité bi moom moo fi nekk jamono ji muy wuyoo ci turu Samira Joadi moom nag la ko tax a jug mooy ñëw tase ak doomu France yay yeewoo fii ci Sénégal ngir fexe rek ba euh, waxtaan ak ñoom ci solos fal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa majorité bi ngir ñu euh, bëri lool euh, teewaay seen teewaay bëri lool ca pencum ndaw réew mu ñu teewlu ay kàddoom. Je suis là aujourd'hui au Sénégal pour rencontrer des électeurs pour leur montrer ci Sénégal ngir dal di gisanteeg électeurs yi ngir wan leen ne ñoom seen pouvoir de vote dafa am solo ndax nag ba jamono ji may àddoo mosuñu ci gis seen bopp man ma bëgg leen xamal ne may candidat candidate bi leen di taxawal pas et eh ben moi je veux être moi je veux la candidate qui les représente je veux être la candidate qui est là pour eux qui est là pour les rassurer et qui est là. maay candidate bi nga xam ne dama fay nekk ngir ñoom yëkkati seen baat. fexe ñu voté ay loi jagleel ko doomu réewu France yi nga xam ne nekkuñu France man maay ki nga xam ne may ubbi sama gémmiñ ngir ci leen aar. je serai celle qui justement permettra à ces FDE de vivre bien dans ces pays. su ñu desee ba léegi ci réewum euh, France njiitu réew ma di Emmanuel Macron dafa fas yéene nag yónnee euh, ki nga xam ne moom mooy envoyé personnel am di Marie Jean-Marie Bockel moom ngeen di gis noonu ca peggu njiitu réew réewum euh, France fii ci Ndakaaru nag ngir waxtaanee. teewaayu militaire français yi fii ci suufu euh, Sénégal moom Jean-Marie Bockel nekkoon secrétaire euh, d'État ca jamonoy Nicolas euh, Sarkozy février la ñu ko nommé envoyé personnel bu président Emmanuel Macron moom moo war a ñëw fii nag Sénégal Jeune Afrique mi nga xam ne moom moo daal di fësal lu ni mel di wax ne ba léegi xamaguñu ban bis lay doon waaye doon na loo xam ne lu taxaw la ba pare ginnaaw euh, voyage boo xam ne am na ko ca Abidjan N'Djamena Libreville Bokel dina ñëw fii ci euh, senegal ngir waxtaane wàllu euh, teewaayu militaires yi fii ci réewum Sénégal ñu àddu itam ci réew muy Niger foofee nag euh, ñu ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi ab groupe euh, boo xam ne euh, politico militaire la moom moo daal di teg loxo préfet bi préfet wu Bilma bi nga xam ne moom moo nekk jiite Bilma ñu daal di koy teg loxo ba noppi nag sàkku ngir laata ñu koy bàyyi ñu bàyyi ñi junte bi nga xam ne moom moo teg loxo Mohamed Bazoum mi nekkoon jiitu réew moom it mu bàyyi ki nga xam ne da ko teg loxo boobu ba léegi. préfet bi nga xam ne moom moo nekk préfet wu département bu Bilma nekk nord est bu euh, Niger euh, nii na nag ci région bu Agadez la euh, bokk commandant la Amadou Torda noonu lay wuyoo moom la ñu daal di teg loxo nag loolee amoon vendredi euh, bi weesu ab communiqué bu bàyyee ko ca ministère de l'intérieur euh, et de la sécurité publique moom moo daal di euh, dëggal lu ni mel di ñu xamle ne attaque bi nag mu ngi amee woon vendredi boobu ay booru juróomi waxtu ci bëccëg ci seen heure ñoom. Euh, ca village euh, nord bi ñu duppee euh, Bilma ay bandi nee nañu yoo xam ne dañu yoroon ni ngànnaay nekkoon ci ab oto ñoom ñoo ñëw daal Euh, causé nag euh, am na daal kenn koo xam ne dee nañu ci délégation bi sax dafa daal di euh, ñàkk bakkanam si jàmmarloo yooyu laata ñuy teg loxo ki nga xam ne moom mooy préfet boobu ba noppi nag sàkku ngir président bi nga xam ne itam teg nañ ko loxo Mohamed Bassou ñu daal di koy bàyyi la ñu bëgg nag nee nañu mooy fexe rek ba li nga xam ne moom mooy démocratie delluwaat ci réew mi ndax putschiste yi te Mohamed Bazoum ginnaaw coup d'état ba ñu fa amal nee nañu ba léegi nag euh, démocratie amagu fa faw nag ñu tabbi ci lu ni mel. mbokk yi li mu moo doon xibaar yi ñu leen euh, jagleloon jaajëf Lawa Diallo euh, ci coordination bi Penda Gueye ak Pape Diop ci réalisation bi mbokk yi yéen itam ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewlu file ki simili yemoo ko juróom-ñetti waxtu naa fi dikkaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan laata boobu programme bi dafay wéy jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci teewlu bi.